مدح Basirin سار وكل ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale contacte leen. ñor normal ñu génn la dëkk bi nga dem Gambie. waa sëñ Xaadim euh, ba léegi ñu ñu continuer ci émission bi euh, ñu koy wax ëttu lasraar euh, ñuy laaj sëñ Xaadim sëñ Xaadim Guèye borom leget gi ñuy laaj lan moo indi dëgg-dëgg tur wi loolu la laaj ndax bari na ñoo xam ne ñu ngi laaj sëñ Xaadim borom leget gi ndax bari na ay tur yoo xam ne am na fi ñu laaj nag yow borom leget gi dëgg-dëgg borom leget gi lu ko waral ndax loo donn la wala luñ la jox la wala loo xam ne yaa ko xalaat rek tudd ko sa bopp. wala lan moo ko indi loolu la ñuy laaj. waaw jërëjëf sëñ Dame comme ni ma la ko waxee rek leket gi nee ba tey leket kese naq di béy loolu yaa nga dégg mag ji di ko wax te leket boo mag ñi dëgg ñi xam leket dëgg-dëgg ku ne xam ne leket dafa am ay mbir leket gi boo xoolee ba ci biir gis nga gee alxuraan xaatima ci nekk xaatim yooyu ci nekk nag mooy mbir mi nag mooy mbóot mi noonu la demee. kon bu yoree na waa kay leget gi nag moo tax boo moo tax man la leget gi rek naxuti béy boo yoree leget gi rek wala nga jaar ci rek da nga gis résultat incha allah noonu tax ñu naan la xaayam ngay borom leget gi. leget nga du leget kese de. yow daal leget ci ngay faje aajo daal ku ci ñëw ba bu la neexee ma jox la nga sangu ci kër ga. boo neexee waaye lu ma la jox ala kulli ànd dana jaar ci leget gi moom ñàkk a gi daal wóorul bu la neexee ma jaaral jox la leneen boo demee nga sangu waaye jaar ci leget gi daal moom ñak ñak ñak nyak naa bañ a wóorul waaw seigne khadim batay ñu konné ci laaji euh tay nag mom xamna émission bi mom faawu mu neex ndax man lu ne dama koy laaj ndax man mom bayuma dara ëtt bi mom mom kuma fi dalal ku nekk. mom mom lool gaay naan duma la may dara ndax fi ëttu la saraada ku nekk fi ñew lu ne nag nit ñi ñomay wax laajel li laajel li yow seigne khadim manam la nga gëna mëna fajj a ndax da ngay faj ku yor ay rap wala da ngay fajj ay ndoxu city wala góor gu néew wala xet yoyu ndax yow ay nga ci deug deug deug timit jërëjëf sëñ Dame xam nga faj dafa am aw yoon xam nga ab dëkk boo fajam da ngay jaar ci yoon faj noonu la demee xam nga mën nit mën naa ñëw nga jox ko saafara rek mu dem waaye man li may def dama koy teg ci ask teg ci yoon wu leer nañ yoon wi mooy seet dangay ngay seet mbirum nit ki nit mënoo koo ñaanal te seetuloo ko daam da koy seet ba xam rawaanam kenn ku ne daa am biddiw nga xool li nga ko war a ñaanalee nga jaar foofa seetal ko ba gis ko sarax sarax ba ser gi don lako gennel bu laaje len ser gi don lako gennel kon yow di nga laaj ci ay manam kula wo manam kula wo di di nga ko meuna setal wala info day ñew ba ci yow wala wala nu muy aaju wut ñew léegi léegi léegi léegi telephone euh, yi bo mo woy wax ma sa aaju sa tour nga wax rek ak sa tour wayu jigen ah, ma setal lako mo pade amay la wakal nga diglu wakal la. noonu la manam lol lol day aaju faj wala gratuit nga ko def yow. non non lan seet gi set gi mom du gratuit lolou mu ne ndax dang koy fanano ba xey bu xeye wax la résultat bi nim démé ba nopp ñu dogu jublu ci ñaan gi nak té kuñu sétal na faaw ñaanal la ñun seetlu ni rek nga dem dañ lay sétal ñaanal la nak lolou moy yoon wi nit ñi dal limay bëgg ñu xam moy képp ku man nak sama morom ñu képp kuñ ci ñaanal sétal seetluñu la koko mënta ñaan sét ñaan sét ci ñëk ba xam ki ngay ñaanal ba foo koy jaar. ba pare daal doo ko mën a waye tëb tëb rek jël nit lool baxna lool waye dafa am aw yoon yoon nak moy set man ku munta setal munum la laa ñaanal ci gattal ni la demee. kon yow manam sëñ khadim euh, dégg nañ kaddu yi amna solo lool sha allah euh, manam ay walum ndoxum cité ak yoyu ak euh, ak hémorite sonal na askan yu trop ndax lool timit ak tamit góor gu new katan jamono ji mom bari na lool lool lool askan yu ñing koy jooytu. ndax loolu tamit am nga ci yow maanaam dëgg dëgg garab ndax bari na ñoo xam ne dañuy wax garab gi ñuy wax te boo ko jëfandikoo daanaka euh, maanaam doo ci gis résultat waaw comme nga wax askan wi tamit bu fekkee ne yow lool man nga ci dara wala ay xeeti ndoxu siti wala hémorroïde tamit nga wax leen ci lu leer loo xam ne mën nga ko daam gi yàlla man lépp waaye man li ma yàlla tërale ci xeet yooyu yëpp mën naa ko ci incha allah garabu kàttan ndoxum siti hémorroïde yëpp dama koy faj kattan nag maa am gu efficace koo xam ne kenn amu ko ci kay ñi ñaan nag lii maa la ko wax bari na ñu koy jëñ ñu bari na ko am nag de. boobu xanaa dañu maa juddul sëñ bi. yow maanaam comme comme góor gu néew kàttan. koo xam ne du ko maanaam ku ko juddu waaliwut yow ci ñaata fan nga koy faj. siñ dam maanaam li ma lay jox traitement lay doon bu la neexee yow sax yaa jëndi li li muy composé man ma ñëw jox la saafara si waaye nag alxuraan lay àndal man sama lépp ci alxuraan lay àndal waaye gi ma ci gisuma kenn koo joral loolu maa ko wax fii nag kenn ku la ji wax na garabu kàttan xaarim ngay ko yor maa ci yor nag. goo xam ne amul effet secondaire daal loolu lor du la gaañ. alxuraan ak li ngay composé gàncax lay doon gàncax. loo neexee mën naa la bindal saafara si nga ñëw waaye yow yaa bu la neexee composé ko sa bopp. maanaam a wér kay ci ci garabu kattan. maanaam comme ci diiran fan wala ñaata weer wala yooyu. saa booy li ma la jël sama garab moom boo ko jëlee chaque jour saa booy tëdd ngay ngay composé lu naan ko def ko une semaine nga xool. une semaine une rek. su fekkoon da ngaa faible daal bi xam nga li jug ku yalla natt ba nga xamne lolu mom moom ko judwaale la xamul dara waaye fekk dara dab inshallah allah sama gar boku jele mom day day melna melon kon askan kon dégg ko non seigne khadim gey borom leget yi neena manam mom moom ndoxum city ak góor gu néew kàttan moom macha la ci dégg nim ko waxe kon say bo mom gars mom mom moom moom fas yéene bu baakha baakha baax ndax mom mi ngi fi ci Touba Ndaamaatu. waaw sëñ Xaadim ba dañuy continuer ci laaj yi ndax wàllum rab ku rab di daaneel muy daanu ay rab wala xeet yu mel noonu ndax yow loolu da koy faj wala maanaam. waaw xam nga wàllum rab moom fi ne jamono ji ñëpp ami rab. Hmm. fi ne surtout jigéen ñi ndax rab li koy waral en général sama mbokki jigéen ñi laay wax man nag engagé wu ma ne mën naa ko faj mun dama laal foofu loolu moom duma ma ci dugg waaye jigéen ñi li koy dal li tax mu leen dal mooy sol col gi. ngelaw du la jaay fan xamuñ heure génn xamuñ heure tëdd xamuñ diggu njolloor te yëpp mag ñi dañ ko doon wax li loolu daal ko man dama leen koy baax ko ci mën a maytu yu mel noonu donc waaye man loolu loolu moom. yow moom rab doo ko faj daal man faju may rab. waaye lii ma la wax nii sama biir wax ku ci ñëw jëflante moom ci kàttanu yàlla da ci am résultat loolu daal foofu laa foofu laa yam ñu jàll ci kanam. waaw sëñ Xaadim euh, ba tey yow ku fekkoon tey jii maanaam ku la bëggoon a jot wala ku bëgg xam fi nga nekk tamit nan lay fexe ba gis la ndax da am tamit ay ménagères yoo xam ne kula soxla ci ñom lay jaar wala day ñew ci yow direct rek aussi. waaw amna ño xamne man ne jaar ci man amna sama numéro tamit na daw ci kanam tout ci e, écran bi ci vidéo bi dañ ko gis ma ngi Touba ndamat si xam dal mi ngi Touba léegi nam ma dugg Dakar nak man sama liggéey fofu la kuma soxla tamit soxla ma sa kër uru ay liggéey ay xalwato yëpp dama koy def semaine ay xalwat semaine bu lo neexee ma defal ko sa kër buñ ko buñ ci waxtane bu jógoo ci ci katnu yalla noonu daal la la sëñ xaarim daxe man nag ñaanlu ma kenn xam nga léegi damaa dama ah, li maa ko ci doole laajoo ma ko damaa bëgg sëriñ si ñaan ñuy wax nit ñi wala ñuy ñaanlu ñuy wax nit ñi li am nit ki mënoo ko ñaan ba tëddi nelaw sëñ daam gis nga nit ñi da ngay jaamu yàlla nga nit ko liggéey xaalisam bu weex tàll ne diw am liggéeyal ma yaakaar la toog toog di xaar yow nga tëdd loolu mënut a yónul maanaam sax sëñ bi dafa yomb da ngay jug fajar 3 heures wala 4 heures toog sa der dont bind nga ko jox waaye nga ñaanal ko ci kurus nga xam ne affaire bi day gën a rappelé daal. waaye nit ñi nañ yow ci ñuy ñaanlu ñi nax ñoo ko teg seen bopp. nañ bàyyi nit ñi ndax da leen ñaanal wala ñu jox la xaalis ne la génneel sarax nga dem lekk sarax ba tëdd nelaw loolu sax njaboot lay dem nañ bàyyi loolu. man ku ma mënta génneel ay su ma koy génneel bañ ne ko dama ko vidéo yónnee la ndax mu leer ndax nit du liggéey xaalisam ba sonn ñëw ñax jox la ko nga tëdd nelaw sëñ bi daal loolu dafa xool loolu xel da ko nanguwut man na sama ñaan yombut waaye tamit jëfewut ci kaw nañ li ñu waxante nañ ko def rek ba ba ba nga ñàkk gis ci kàttanu yàlla yow daal kon su ma déggee ni nga waxee daal sëñ xaadim mooy maanaam ku ñëw ci sëñ xaadim borom leget yi incha allah rabbi moom li ngay réccu mooy yéex gee ñëw waaye boo fa ñëwee moom sa aajo jof indi woon ju ci ne yàlla na ko faj incha allah rabbi kon sëñ xaadim ba tey ñu dugg ba tey ci wàllum euh, euh, làmb yi ndax di nga xool ci làmb ak di nga xool ci ay football wala yooyu parce que yooy tamit euh, maanaam moom ak jamono ànd ndax làmb fi lañ ko fekk football fi lañ ko fekk ndax yooyu tamit danga nga ci ñaan wala yooyu tamit aussi ndax wala di nga ko seet tamit comme bu dee yi da xool comme làmb jii di am euh, muy Balla Gaye Boy Niang nit ñi am nañ ci jaaxle ndax yooyu tamit ndax da nga ci xool. wala wala déet. waaw sëñ Dame gis nga affaire làmb ak euh, xam nga mag Sénégal bi jàll doon naa ci waaye man joxewuma score am loo xam mbirum yàlla la. déedéet damaa wax nañ génne sarax nangam. sarax ba xawoon na tuuti ci nit ñi bëti nit ñi daal. am na maara yu ñu def vaar yu bari de am na maara yu fi ne xam nga. li ñu ma def vaar mooy man joxuma score damaa wax ne nañ génn sarax nangam sarax ba na xaw a reetaanu mm. waaye defuñ ko. ma yow yow ban ban sarax nga jox woon dama ne nañu génn gerte caaf. Ah, gerte caaf barke Sëriñ loolu la wax. te gerte suñ bi da dem ci marché bi ñun la génneel dugub sarax mm. wala génneel mboq loo tax gerte caaf mënuñ ko génne sarax boo loo xamul xamoo ko ne sëñ bi sëñ bi loo xamul da ngay noppi ndax xamoo ko sa morom xam na ko man li ma xam xam naa ko te loolu laa joxoon ñu génn génn wuñ ko la yàlla def na la ñu war a def waaye instant yi waxi affaire mbël yi lamb lamb ba Gaye Boy Niang ji ñu bëri ñu ngi ma ci woo naa saa yi doo wax ci man leen ko séq daal kenn ku ñaari côté yi ku mu ci woo ma wax ma ci wax di yàq wax ku mu ci woo ma wax lu leer nañ waaye combat boobu c'est trop trop mystique hmm. waaw daa bari mystique daal ñu bëri dañ ci wax di Ah. waaye ku jox boobu nga teg ko ci aksi kuñ yaakaar ne jël mën naa mën naa foog fu ñu ko jëmuwut de. Hmm. baat ki suñ tubaab maa la wax lii. ku ma ci war nag ci doo côté yi nag ma ma ma ñu liggéey. buñ ko foogeewul maanaam comme maanaam ah. man maanaam comme comme Balla Gaye mën naa mën naa daanu. wala wala ma Balla Gaye mën naa daanu xaw ma kee mën naa daanu man ne damaa la ku loolu engagement la ku ma ku jël sart ci ñoo ñoom ñaar yëpp xam nga xam nga boo ne jël mën naa am fu ñu ko foogeewul ah, te kii di ndaw kii di mag kii yàgg ci ci ci ci ci làmb ji ah, kii di ndaw kon dañuy day kon ku dégg ni nga wax day mel ne da ne kon Boy Niang mën naa daan Balla Gaye dee tax sama wax télé laay wax adduna may seetaan li na leer waaw lool waaw loolu moo Boy day daan waxuma Balla Gaye daan dama ne te trop musique yuuxu mën naa jóge musique moom mënta mënta ñàkk ci làmb parce que làmb ku ne làmb ne musique booy ñaa day jóg Balla Gaye jóg keneen jóg ñëpp jóg. waaw am na kuñ gën a yaakaar musique. ci ñoom ñaar waaw. kan la ci ah, am na kuñ am na ah nit loolu gars yi analysé waaye am na ci gën a yaakaar. kuñ gën a yaakaar ne maanaam moo moo gën a bëgg musique. te fekk mën demee bañ a deme noonu. waaye xam nga kan la yow. xam naa ko waaye du ma ko wax li tax ma koy wax mooy ñoom dañ may woo. non xam nga Sénégal moom fi ne li ñu bëgg mooy maanaam lu waay di waxati rek mu doon lu tege ci taabal yaa ngi dégg parce que loolu mooy loolu dafa am solo. parce que loolu day day tax gaa yi bàyyi la xel. d'accord naa gars yi bàyyi la xel ba wax loo xam ne tamit ëllëgee ñu doon na doon li may wax dafa leer néew ma Balla Gaye day daan néew ma boo Niang day daan dama ne. misig na te ku ma ci woo de côté ma ñu liggéey ci ma ma ma jox la ci tegtal lu wér te ba ñu jëlee pour ndam yàlla doon ci may am ndam ci ñoom ñaan ñëpp. ah li ah kon yow da ngaa bëgg daal Balla Gaye wala wala kon Boy ku la ci woo daal. yëmalu ko jox ci ay Balla Gaye Boy Niang mboolem kuy bëre te te soxla ndam. boo woowee yàlla mën nañu xam-xam boo ji jëm ci làmb mën nañ ci def loxoom yàlla mën laa may ndam. wàllum wàllum wàllum wàllum politique beeg yooyu ndax da nga ciy yëngu tamit ci wàllu ñaan wala tamit am nga loo ci gis ndax jamono ji xam nga ne tamit euh, maanaam Sénégal ñu ngi jëm ci élection te tamit jamono ji réew mi doy na waar ah ci tamit suñu président yi fi nekk ndax yooyu tamit yaa ngi am yoo ciy kii wala. waaw wàllum politique moom politique moom ku ne ñëw ku ne lay woo ku bëgg ndam danga ñëw ndax politiciens yi moom ñëpp la ñuy dem waaye ku ci ñëw am nañu jot ñëw ci ci élection yi jàll bañ dama leen wax li fi ne. bañ de am nañ dam amuñ ndam waaye naal la ma leen wax ak lañ bëgg jubóowuñ ñu dem seeti keneen waaye ku ci ñëw daal ñu teg la ci yoon ñaanal la ci kàttanu yàlla la nga bëgg yàlla def ci ndam. man nag samay ñaan nag engagé xam nga gars yi ñaankat yi nag danaa place yàlla bi ñu bëgg a jël loolu mu doon ne de hmm. nañ bàyyi seen caaxaan tey ñaan gars yi loolu lañu bëgg di naan ay ma faj ko du aajo bi looy faj hmm. ci kàttanu yàlla man ku soxla ñëwal ku soxla toogal dem ca kay xërëma ka def leneen d'ailleurs gars yi ni yow da nga koy dégg dégg yow yow yaa ngi dëkk bi gis nga gars yi engagement yi ñuy jël ci man nag engagement bi muy jël mooy turu yàlla laay di ko liggéey yor di alxuraanu karim di ko liggéey di ci faj aajo jaam ñi ci nu yàlla loolu leer na wala damay bañ kenn yóbbu ma fenn naan xaalis moo jël engrais non non waaye nag ku ñëw noonu dañu fas fas yéene liggéeyal la sonnal la guddil la bëccëgal la te du ñuy nelaw ba nga gis résultat incha mm-hmm. fii ba Europe ak fépp ci am. waaw ba tey sëñ Xaadim ñu continuer ci laaj yi ba tey nga nekk fii ci ñuy def émission bu mag bi ci Touba Média TV ah, di ko defee fii ci ëttu lasaraar comme ni ñu koy waxee saa su nekk ba léegi kon sëñ Xaadim ndax jigen yi tamit am nañ ci walu bu baax ndax jigen ju bëgg ndax jamono ji mom mel ne sama classe gi mom ah te jigen ji bëgg jëkkër bari na ndax loolu dañ def ay ñaan ak jigen ju am faru rap. ndax bari na ño xamne jigen ño xamne faru rap ba leen sonal dañuy tëdd di gënt di gënt di jaxaso ko euh, góor bo yeewoo do gis kenn ah yoy dafa bari ndax yu mel non timit aussi manam di ko di nga ko di ko fajj ak tamit ku bëgg jëkkër ak tamit euh, manam ku sëb sey yëngu yu mel noonu dafa am solo ndax yooyu tamit di yow maanaam am nga ci ay ay ay tegtal yu am solo. waaw koy waaw jëf jërëjëf sëñ jigéen gu bëgg jëkkër wala góor gu bëgg soxna wala góor gu jigéen gu am farara wala go yooyu dañ ciy liggéey yooyu ñu ngi ci ay secret yu doy waar wala nga am sa jëkkër ay jafe-jafe loolu noob lañ koy def am nañ ci noob goo xam ne lu efficace lay doon moom. jubóo su jëkkër sans pour waaye noob gi li problème mooy moom moom avis lay doon moom. moom koy boo ji dugg ma na nga ci dugg na na ko na na doon koo xam ne moom koy bëgg la à 100 pour cent nga xam du ngeen taxalu waaye à vie lay doon moom boo ko xasee def moom. ba jëkkër ak jabar waaw la ko bëgg koo xam ne soxna nga ko bëgg ci lu wér nag waaye ci euh, defaluma ko koy caaxaan moom ndax envie dafa doy waar noob googu koy maa la ko dama koo jar ba gis ko lu leer laa lay wax nii. ku bëgg jëkkër koo ñu ci woo ñu jox la ay tegtal defal la ay ñaan nga am ko nu ko bëggee ñu ngi ceeg yu bagage yu doy waar bagage daal li yor bëri na du jeex te yàlla def na ko fi xam-xam nag si mbir mo suwaa xama suñ tubaab ko waxoon na jar daw ba daw ba siin waaw te ñun ñu ngi ci di gëstu ci liñ ci am ñu ngi ci ñu ngi ko téye liñ ci amit danañ ko bokk ak jaam yi di leen fajal suñu seen aajo ci kàttanu yàlla macha allah sëñ Xaadim borom leget yi euh, maanaam jigéen juy am faru rab di tëdd di gént wala góor gu am ndawasu rab loolu tamit ndax am nga saafara si tamit da nga koy faj wala da nga koy danga koy da nga koy defal ay ñaan rek ba keroog muy deñ wala xam nga dafa am ñoo xam ne da ngay ñëw ñu defal la moom urgent taf-taf gars yi nee nañ léegi dañ koy def dangay indi dara benn soxla ñu din la ko taf-taf am ñoo xam ne dañuy fas kii rek muy dem heure ba ñuy jox la saafara boo ñuy jox la saafara ndax yow maanaam góor gu am ndaw sa rab wala jigéen ju am faru rab ndax loolu bari na loolu nag yow loo ci def. suñ daam yooyu dafa am aw yoon la ma xam ne ñaan bala nga bala ngaa ñaanal kat da nga koy seet yow da koy xool xam nga ñu ne dama am faru rab naa ko bindal yi def de doxiwu noonu dañ koy seet ba xam lu waral lii. dañ ko ba gis ko doo ko ah, xaw ma buntu ba ñuy jaar wala bunt ba ñuy ba jaar kii ko ñaanal ko ca dañ koy seet daal ku am faru wala ko am ndaw rab dañ koy xool ba gis ko buñ ko xool ba gis nga lañuy jëfandoo ci suñu xam-xam mi ngi ci suñu kàggu. dañ koy génne ñëw bind ko wala ñu sikkar ko wala ñu ñaan la ko nga dem sa loola saafara te waaye nag dañ koy xool nag ba noppi waaw dañ koy loo ci ñaan gi dañ koy xool faru rab yi yëpp des koy xool ñaan la képp ku lay ñaan te la du la ñaan jàpp. waaw gars yi maa ci dàq ñaan de. maa leen dàq ñaan du saaxaan. Ah, am na gars yu ne ci terrain bi yoo xam ne lu wér la ñu yor de. sëñ daam man ku ne ci terrain beeg ku ne ci tuusi laa yemale. faale woo faale woo faale woo leen. man xam nga. xam nga faalewu ma de sax du ma ko wax loolu teggin waaye daal li ma yor laa gëm man te gëm naan li ñoom yoruñ ko. Hmm. loolu daal mooy li moom. ah mat Sénégal yi ba jàll am na sëriñ su ci waxoon moom lañ lañ waxoon am na am ñoo xam lañ waxoon moom. waar nañ leen waa ñañ waar ak ña leen waar loolu seen affaire la man daal sama affaire laa lijjanti mi ngi dox man kenn du ma waar ci xeet yooyu moom. waaw jërëjëf sëñ Xaadim kon ah, ci émission bu am solo bi ñu doon def fii ci ëttu ëttu tey ñu dalaloon ci suñu jàmbaar ji di wax suñu Xaadim Guèye borom leget yi euh, xam naa dañu yemale fii émission bi ba beneen yoon ak yeneen sëriñ yemale wuñ ko suñu Xaadim rek ñu ngi ko yemale ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen képp ku ñëw fii rek rus ñu laa te nag. wàllum jaaro yi sax secret jaaro maa ngi ci bu wér. ah secret jaaro dong am. no bii moom jaaro kii la rek bokkut ak jaaro yooyu. ah man daal secret jaaro laa ko bii ma takk. yooyu yooyu maanaam lu muy jariñ moom. secret am na ubbeeku am na kaaraange am na yëpp bayir yëpp xam nga nit ku ne nit ne daa am per boo war a takk yow nit ku ne daanaka da ngay jël sa per rek ñëw takk sol. comme da am bu ma bu ma la xooloon yow. Ah. dana la wax per bu xonq nga war a takk wala bu wala bu zone wala nangam. ah loolu ciy am. da ak ah, xa sëriñ si xam dëgg per. man maa xaw ma loo te dox dama la. bu ma la ko xooloon daan naa la wax pet bi xonk bi mom ngay continuer wala da koy tek wut bu wer manam yow kon jaaro yi bo xasse am jaru nga tak ndom jaru nga gol li la wax amna na ñu ah, non non ndom ñun amna nañu li loo xam ndom ay ndom lañ koy liggéeyal ah, amna yo yoo xam ne tamit jaaro la luñ mën def ci jaaro mo nañ ko def ci ndom bag la jaaro yi ñu defa ñun jaaro yi manam ku ko bëgg na nga def ak ak ak lan mo ñariñ jaaro bi deug deug jaaro yi ko la neewaa la bay rek kaaraange yëpp a ngi ci hmm. waaw ku ci bëgg rek comme numéro yi dana jall legi numéro yi waaw waaw soob yalla ku ci bëgg mom bu ñëw lepp da na da mi ngi fi dal tégué waaw yalla dañu fay wacc ngir ñu ñi xamul am na ñoo xam mënuñ ñi munul nak loolu dañu war nopi té ñuy dem ci ñi man man néew kenn mënu la ñi munut la wax tuduma kenn tamit waye dañu wara nopi wala ñu bayyi kuñ gis mu ne ci réseaux sociaux yi ñu jël seen xaar joxo té ñoy naxé kessé ñi ñi nax nag ñoo war a yow te ñi xamé sëriñ ci ak ñi naxé waaw jërëjëf sëñ Xaadim ci cadeau yi kon sa cadeau yi mujju rek euh, nga wax mbolam waxale numéro bi ak fi nga nek ndax kuñ ne Touba bëgg laa seet wala ku dem soow bëgg gis nu muy def ak tamit ku la bëgg jot ci yan numéro la la mën a jotee yooyu yëpp danañ ko jàllale kon yow maanaam sa kàddu gi jërëjëf sëñ Dame ñun ñi ngi Touba pour l'instant nii ñi ngi Touba Touba rek lañ ëpp lu ñu nekk nag Touba luñ ëpp lu ñu ku ñu tamit nga nekk Dakar danañ ay jéego bañ gisante Dakar numéro bi nag 77 la 140 57 47 noonu daal moom noonu la demee ku ñuy woo daal ñi ngi Touba ndaamaatu nekk di ñaan ci képp ku ñun ñëw ñun daal yàlla ku ñëw nat ku ñëw ci ñun te sa aaj nuru dafa fajo yàlla boo agsi loolu lu foofu daal lañ nekk ñun waaw ba tooguñ nag ñi ngi jig àll bi barki dem laa jógee Gàmbi te àll Gàmbi uti xam-xam rek gaa yi tëdd yi nelaw lañu war bàyyi dugg ci àll bi seen caax ah kay ñu ne fi nax nañu sëñ bi sëñ bi da ngeen ci war a jug di maam naxaate bi fa war a jax man sëriñ bu ku ma woo naa ma diw sàngam nax na ma kooku naa ko jéem ndax mu bàyyi naxaate ñi ñi yor dëgg toog loolu daal samay wax sooy wax du neex de. Ah, da ngay génneewaate kon yow daal. ku ci ñëw normal ñu génne la dëkk bi nga dem Gàmbi. Hmm. wala nga seet foo jëm nañuy jox nit ñi alxuraan dina ñaanal ci yàlla te engagement ci bopp te xam ne yàlla fi ne mooy faj waaw nit ñi nag bu la wóolee ba ñëw dañuy góorgóorlu. toog ci liggéey fanaane liggéey di jàng alxuraan di leen ñaan di jàng xasaayid Sëñ yi. jërëjëf ñu ngi sant ñu ngi sant ñu ngi sant ñëpp di ñaanal borom site bii Touba Média moom ñëpp xam nañ ko adduna ñëpp koy seetaan hmm. moom ku ne xam na dañ na réew mi chaque jour ne woon na sa sa sa waa émission bi dañ koy laajte man nag ñëw gi mu fi ñëw yàlla bu mu nekk suñ mujjëru ñëw ci barke bi xaadima yàlla suñu Muntaxa mu yàgg fi ne ma ubbee woon suñu Seex Moodu Mbenn Fall ak njabaru suñ Tuubaa yi ñaar sama ñaar ñaar waajur ñu yàgg fi ak mboolem sëriñ sëpp ak kilifa diine yëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak lu ci juum lu ci dëng ci ñun la waaye xam-xam bi moom mi ngi fi ku ñëw danañ gën a jëlante ndax li talal rek dañuy wax waaw te fu ne lay dem ci réew mi jërëjëf ah jërëjëf sëñ ci euh, émission bi am solo bi kon dégg ngeen ko noonu moo ko waxee rek kon ku bëgg ci jaaro yi jaaro yi neen ak ubbite la ak yokkute la kaaraange la lépp la ko képp koo xam tamit ndoxum cité de la sonal wala hémorroïde wala góor gu néew kattan dem nañ seeti sëñ xaadim géy borom leget yi mi ngi fii ci Touba Ndaamaatu jigéen ñi nga xam dañoo bëgg jëkkër wala ku am faras eh, ku am ndawas rab góor gu am ndawas rab wala jigéen ju am faru rab yooyu yëpp dem nañ seeti sëñ xaadim géey borom leget gi ñu ngi tubaa ndaamaatu numéro mooy daw ni ci suuf kon ñu ngi àndoon ak yéen ci émission bu am solo bi ci tubaa Média TV ñu àndoon ceeg suñu caméraman bu mag bi sëñ xaadim Ndiaye pro euh, saa su nekk ñu koy ànd ak yéen ci alxames bu nekk ci yeneen i sëriñ ak yeneen i boromi xam-xam saa su nekk kon jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah rabbi